Padangkan sendinya jelas, Na poids piti jilor. Ndeysaan di siaga sama grand Landing Sa borom Toubacouta. Waaye Mansour production la moo gaaw sama maa koy siyaar. Di ko denkan seen ak jijak jilas. Ndeysaan bu ñuy mujjee bëgge final. Jijak jelas. Dan Sène moo ko daanoon. Jijak a war a jël revanche tey. Waaye Mansour production la moo gaaw sama maa koy bëggee di ndeysaan sa jabak Mansour ndeysaan di siyaare sa jabak Fatou waaye chef li borom bu borom jaare maa ngi koy di ko kontaane ndeysaan jijak jijak gañ jijak jilas gañ seen eh, na jijak jijak ak gañ seen eh plaqué plaqué da koy tak Djidiack ak Guinass ak Ngagne he Djidiack da koy caxabal wala eegal final hey Djidiack am na ngemb de Ngagne Sène am ngemb hey hey ndeysaan Ngagne Sène dajale de Ngagne Sène a dajale Djidiack Ngagne Sène